président Macky Sall man bett ma bett ma pour plusieurs raisons euh, bi ci jiitu 2009 euh, exactement décembre 2008 laa bokkoon affaire ànd ak moom cheminé dox mu jaayoon ma une vision vision bi ma ci doon gis sama bopp ba fi may wax ak yow li ma ci gis sama bopp dafa conforté ma position il m'a mis à l'aise il m'a mis à l'aise parce que il faut le saluer c'est une première d'abord son âge il a cité le président et de ans, passant par Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade âge carrière il aurait pu dire la dem xëy na dinañ parce que constitutionnellement, il a la possibilité. Il avait le droit de se présenter. Et ëpp solo tam de tënk ko ci wax Le Sénégal pour être ci bàyyi xel mooy wax sàmm ko le respect de la parole donnée président m'a mis à l'aise parce que wane na ne nguur les privilège bu nous a avantage bu nous am wax sam ko alal saluer la te loolu la kon koy di ko saluer fi mu yóbbu démocratie Sénégal moo amaan mhm. parce que wax ci discours Sénégal à travers le monde wax fa fu nekk waxal ko lu waxul utal ko yu amul créer intention l'international taxaw bi xool Sénégal lan mooy position leader bi tey mu ne leen Afrique la ñu nekk nous sommes un petit pays sapel s'appelle le du tere ñooñu ki leen jiite li mu dollu ci ñi ko fi jiitu woon lu ñu amal solo la te daf koy continuer ñu ba sàmm président wane na yoonu ku fi taxawati te li ma gën a ñor ci wax ci ñoom daf ne

sama bëgg-bëgg mooy mu moderne, parce que comme ni ma ko je dama ànd décembre 2008 on est au mois de juin ou juillet 2023 on a fait du chemin ma gis ci moom lu ma doy doy boobu ma foogoon ne war na mun continuer parce que une vision 2035 la Le président a dit wan une démocratie dañ tabac. tabax président dit ñu y a ay valeurs yu am importance loolu nag defe naa ne buñ ne amuñu mbetteel ba démb ba nii may waxee yow sama statut Macky Sall sama candidat 2024 moo ci nekk parce que loolu laa bëggoon. d' accord mais nag. Mhm. taxawaayam doxalinam renforcer war na la démocratie sénégalaise soulagement bi ma am contentement bi ma am ci mu mun a remplacer sama déception mooy fi mu teg Sénégal tey yëkkati na Sénégal mu nekk ci podium bi. loolu nag amu prix. dëgg la li mu def nag di ko ñaaw jaañ waxee sama ko débatteur. Mhm. c'est bien parce que tamit mun nga wuuteeg nit xalaat mais bu defee lu baax nga ne def na lu mhm. baax. Mhm. def na lu baax lu kenn xaaru woon. ku def lu rëy nag. am lu rëy. jaañ euh, solution. jërëjëf Diagne defe ñoom. avenir benn bokk yaakaar euh, dañuy resté républicain.

ci loolu la ñuy ànd ak moom donc ñi ngi koy déglu def na déclaration bu jëm ci sénégalais yi mooy li mu waxoon la patrie avant le parti mais dina dellu si waat ak njabootam nag muy le parti bi nga xamante ni bii d' abord mooy affaire bi nga xamante ne bii au tout début ñu nag moom la woon dina wàccaat aussi ci la grande coalition ni ko waxee léegi muy la coalition Benno Bokk Yaakaar joxe fa nag ay directives yoo xam ne ñun loolu mooy nekk suñu code de conduite soo tamit dañ ko ciy déglu déglu bi ñu ko ciy déglu mooy wóolu bi ñu ko wóolu tey wóolu woon ko ko déglu moom lañ koy wóolu suba donc coalition bi avenir am orientation yi ci président Macky Sall joxe boobu la ñuy suivre donc wax na ak peuple sénégalais bi nga xam ne mooy président de tous les sénégalais ñu déglu discours président de tous les sénégalais ñun en tant que ay républicain en tant que ay militant wu APR militant yu bokk ci parti ñu ngi déglu suñu président de parti fan la ñuy jëmale lan la ñuy digal su nag ci li ko motiver mooy bokk na ci nee na émeet yi fi nekk yàq bi te dafa bëgg réew mi bëgg comme koomu réew mi est-ce que loolu it opposition bi mën ko dégg. alors li ma ci li ma wax sànq rek laay laay wax président balisé na balisé na mooy wane na yoon ndaxte ndaw la ndaw mooy ku après les indépendances mën lañ la considérer ci ndaw yi. su yàlla dogalee muy président bu judd après les indépendances jël pouvoir accepter def ci deux mandats delloo amul lu ko justifier li ma retenir ci waxam te mu fondamental mooy li mu ne moo ko waxoon waxoon na ko jëfe na ko jàpp ne bu émeute yi amul woon l'homme Macky Sall bi ma xam bu amul woon émeute amul woon taal amul woon yàq aussi man jàppoon naa ne lii mooy nekk décision hmm. parce que il a toujours chanté baatu góor jaay wax na ko léegi hmm. góor laa te góor laa du n'importe qui moo koy wax ah mën na nekk góor jëfe-jëfe ni ku góorewul hmm. mais jëf nekk góor jëfe góor loolu président joxe man donc ma jàpp ne amul relation ak émeute ñu koy déplorer nag ñu hmm. ñaawlu mais sama conviction ferme mooy président nekkoon na émeute amoon na amul lii moo nekkoon position parce bind na ko ni ko waxee en 2018 mille dix huit noir sur blanc. Hmm. defe naa ne day am loo xamante ne rek il faut histoire nit ñi di koy di koy di koy rappeler. Hmm. c' est pas pour yéen bokk dañuy wax en général tout couleur yi dañuy am ay ay valeurs yu ñuy incarné kon su fi yàlla boole ko foofu sama def distinction yeneen xeet te yëpp baax na. Hmm. mais fam ñoo xam ne c' est des particularités ñu am lu ñu leen moomale mu bokk fa wane ko ça veut dire que Sénégal li fi nit ñi maa ngi bàyyi woon mu ngi fi et vraiment c'est important leçon bi mu joxe tey. alors euh, salam alaikum.